te may ko wér ba mu àggale mboolem naa yi nga xam ne fas yéene na ko liggéey Cheikh Ahmad Khadim nga xam ne moo tax ñu daje fi kàddu yi xam naa ne ñu gàttalee doon maa ngi koy yëkkati nag ci turu mbooloo bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dafa tawfiq yoo xam ne wa mënee ko mënee toll noonu waxuma laa ko ndax laltaay yi jiitu dafa tax ba yi ma waroon a wax yëpp mën naa ko tënk ndax foofu rek lañ bëggoon a jaar kon mbooloo mi dañu sant sëriñ bi ci tawfeex yi nga xam ne defal na leen ko muy naala mu réew yi nga xam ne dafa bokkoon ci naari Cheikh al Xadim radiyallahu anhu ko waxee ña ko jiitu woon kenn ku mu ñëw nag bëgg cee tàmbalee ak liggéey defal ñu tawfeex yi wax ne nan ko ci taxawal jiital ci mbooloo mi ñuy wax Rawdu Rayaahiin waaye nag ñu ànd ko ak mboolem njabootu Sëriñ Tuuba tàmbalee ci kër sunu maam moom Cheikh Mor moom sunu maam Jaara kër Cheikh Ibrahima Fati kër Cheikh Massamba kër Cheikh si Cheikh Hafsa ak mboolem mbokki sëriñ bi ak mboolem ak njabootam kër Sëriñ Mandumbe ak mboolem kër yi nga xam ne taal yi nga xam ne sëriñ bee leen taal ak mboolem kër Sëriñ Tuuba yi ci boppam ak mboolem mbooloo yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu xam-xam ci yoonu murid ak mboolem borom xam-xam ci yoonu murid ak borom xam-xam yi nga ne bëgg nañu lu ci yëngatu ci wàllu xam-xam ci biir réew mi ak ñu bari ma lii mu doon loo xam ne daf koo xam moom woonu ci kër Sëriñ

déglu ko ay yoon yaakaar naa ne ko du juróom-ñaari yoon wutaat ñeneen nit loo xam ne feneen lañ def ñu wax leen ñu déglu ko kenn ku nekk ñu ne la li nga bëgg li nga déggee wax na nga ko bind mu doon bind yu bari yu wute lool ñu tànnaat ca nag ba génn ci benn boo xam ne jàpp nañ ne loolu sëriñ bi di def lool ñu ne sëriñ bi dafa wax ne dafa bëgg jàngukaay boo xam ne dafay tàmbalee ci suuf soxla dal yi njàng mu am njëriñ waaye bàyyiwul kenn ku bëgg a jàng ak noo bëgg a jàng tam doon njàng mu am njëriñ ñu ne kon dañ koy def ñeenti xaaj benn bi mooy daaree alxuraanul karim bi ci topp mooy njàng mu majlis bi ci topp mooy njàng mu école yi nga xam ne moo fi nekk bi ci teel topp mooy njàng mu université ñu tàmbalee la ci alxuraanul karim ndax moom mooy mbirum Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moom la doon subhaanahu wa taala sallallahu alayhi mu ñëw ngir yéwénal sunu àddina ngir ñu mën a dee waajal sunu àllaaxira sëriñ bi itam defal ko muy léppam ndax nee na alxuraan mooy wéttalam alxuraan ya seen biir nag ñoo am ay commission ay sous commission yoo xam ne kenn ku ci nekk dafa am lu ñu ba fii mu nekk nii tënk nañu ba ba nekk ba daray alxuraan ba muy beq yi mbiri dëkkaan bi lu mu fi war a def tënk nañu waxtu yi ñu war a jàng waxtu yi ñu war a nelaw waxtu yi ñu war a toog ñu koy waxtaanal ci मराहिल in the would trabalham يتبع سنته الغرى وإني أحمد دفعي سلاة بدل بيان صلى الله عليه وسلم بموت kon bu wax université Touba université islamique lay wax waaye lislaam nag mooy xam-xam lislaam lépp a ngi ci biir ndax alquranul karim mooy sunu dustuur mooy bataaxal bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala dañ ko yónnee ngir ñu xam ko xam la ca nekk ci nit ñu jëm ko jëfe la fa nekk uh, lislaam des na ko jàngal waaye wax naa ne nag lislaam mooy lépp te liggéey am itam jàngukaay boo xam ne lépp nga xaar aju ci wàllu làkk dañ ko fi jàng ndax gis nañ ne moo leen Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu dafa war a day ak léegi fépp foo xam ne alquranul karim àgg na fa moo leen Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam àgg fa njàngaleew sëriñ bi dafa war a yem bu ñuy waxtaan ci sunu biir day naan dëgg yi dana waroon a dem ci réew mu gën a sori ci àddina moo xam Chine la moo xam Inde la moo xam Brésil la dem dem université fekk fa ku dëkk ci réew ma di professeur di jàngale Sëriñ Tuubaa foofu laa jël métier nga xam ne sunu mbokk yi waa Sénégal xarañ nañ ci waaye ñu tàggee ci aw nit ñoo xam ne bu ñu ko jàngee foofa danañ ci toll feneen bi ñu toll ba man ci jëfandikoo ci am ñaari ñi nga xam ne ñi nekk feneen ñu toll noonu lañ ci am bu doon liggéey boo xam ne nag bu ko waxee ñu ko tàmbalee li nga xam ne moom lañ tànnoon ci ñu ko doon def ëpp nañ ñeenti téeméer bi waaye jéego bu ñu dox ba jàppale ni ba des na ko tënk তার নিশাব মন sell ni ma ko waxee day taw feex ñu sëriñ bi defal ñoo xam ne taw feex la mënuñu caa àgg waxuma la di ko jiitu ñu fettali la sunu laxsaay di dégg lu ndigalam fas yéene lépp loo xam ne ndigal nañu ko danañ ko def liggéey bi itam dañ ko dëppale ak les lois et règlements yi nga xam ne moo nekk fii Sénégal ndax dañoo bëgg ëllëg ku ci génn diplôme boo ci am muy daay université bi foo dem ci àddina bi ñu xam ne ci université Cheikh Ahmadou Khadim bi man koo jariñoo foofu waa bitim réew itam bu ñu xam ne ne man fa yebal seen ndaw ñëw ñu jàng si bu ñu nag soo amee jàngalekat yoo xam ne soxla lañ leen tey nekk bitim réew itam ñu mën leen am ñu ñëw jàpp ci liggéey loolu kon jàpp naa ne yi université Cheikh Oumar Sall yi loolu la ñu la wax léegi ci yéen jiitu waxuma la muy des ci naan loolu xel xalaat dara lu am njëriñ la xam ne fas yéene ma def te ak de soxla yoon bu soxla ko sëriñ bi ñaanal ko ci dëkk yi ba nga am dafa masala taamu yi wa mawda al fikri wa tafahumi wa masala tashari wa taalimi wa masala taswiri wa tahlil loolu yàlla ko suñu borom sàmmee ci wax sama moom la moo tax maa ci lay wax ci dañu ànd ko moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh